mbokki Sénégal set yi ni ma leen koy waxee tey rek maa ngi ci kër euh, Baye Mandione sama kër sax laay wax ndax fii jëlee naa fi Baye Mandione ba taay yóbbu ko làmb kii nag moom na ñuy wax mooy ki féete à droite moom mooy Rose Rose Ndoye mooy soxnas Baye Mandione Rose Ndoye euh, mooy doomu Mame Bara Ndoye ba ak Koura Diouf waaye nag xamul dara dara dara dara ci Koura ndax Koura dafa teel a génn àdduna kii moo ko yar kii mooy Ndey Isa Ndey Isa Njaay mi ngi nii moo ko yar moo ko yor moo ko toqi moo ko teg ci yoon moo ko dugal école moo ko may Baye Mandione kii mooy yaayu mami sama doom mami ma nekk ca Baye Mor kon am na ngërëm lu rëy loo xam ne gërëm nañ la ko ci suuf loolu fekkee woo ko sa borom kër ñëpp jóg taxaw gërëm la léegi lan nga nu mën a wax ci moom mii nga xam ne yow yaa ko yar ba indi ko ci kër gi te musul yanu ndabul pay kay onze billahi mina sheytaan rajim sant yàlla bu wér di julli ci Seydina Muhammad rasulullah sallallahu taala wa salaam Rose Ndoye mii li ma mën a wax ci moom bari na ndax seen yaay dafa génn àddina ba mu génnee àddina seen papa kenn doyu ma ci nday sa moo ma ci doy jël ma dénk ma leen waaye xale yi demuñu dikkuñu fu ma leen yamloo fa la yam lu ma leen sant la ñuy def jikko ju ne ci man moom laay def ci ñoom te yàlla rek a tax nag du moom rek moo ke am la waaye dañoo nekk ak man te yàlla tax ma ma def ci ñoom te yàlla tax du lenn lu may séentu pour pay ak ëllëg wala pay àddina dama xam ne ni ma jure sama doom muy séeni mag noonu laa leen jure ñuy séeni rakk ma boole leen ñu déggal ma nag aw ci samay waaw ba tey lii am bàyyi ma njoon nag ma di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokk a wërsëgam mm-hmm. respecté na ma fonk na Rose faale nañu te lu muy def rek danaa ool ma mère Ndiaye lu muy wax ne ool ma mère Ndiaye loolu sag bu rëy la yal na ko yàlla dolli sutura ak mbooloo mu jullit waaw li wax ci moom nag daal ne moom yàlla def na daal dey koo xam ne bon amul benn problème ci ak njabootam du luñ ko sonal te nee na loolu lépp ni ko dëggee ci yow loolu loo ci mën a wax loolu sant papaam rek ndax papaam masula bàyyi benn doomam lu mu masaa am def ko ci doomam def ko ci julliti yàlla yi kon tey lii bu ñëwee dañuy sant yàlla njabootam gi bu ñu jógee lu ñu ko defar rek fayaguñu ko de dañuy def rek te yàlla tax def fayaguñu ko nag ndax li mu def ci doomam doom mënu ko kaa fay bëgg na doom bëgg goo xam ne gi moo ko gënal jabar moo ko gënal jabar lu doomam jooy rek ànd na ca loola jërëjëf Ndoye maa ngi koy sant di ko gërëm. jërëjëf Ndeye Issa léegi nag gis ngeen euh, miisu ki nga xam ne moom mooy Baye Mandione gis nga la princesse de Baye Mandione la princesse de Falline la princesse de Ndoyeen Rose Rose Ndoye tey yaa ngi jàkkaarloog ñëpp. bërki démb booy ñang moo ngénte tey euh, Baye Mandione moo ngénte ëllëg keneen mooy aaye te xam nga istaar yi ñoom seeni soxla gars yi doon leen di bëgg di gis lool naan ndax kii mooy soxnas booy ñang ndax kii mooy soxnas euh, Baye Mandione nga xam ne soo demee fee fekk fa maam leena moom mooy soxnas booy ñang tey nag ñu ngi ci Rose Ndoye ki nga xam ne moom mooy soxnas Baye Mandione la princesse de Thiaroye de Ndoyène Rose nuyul salaamaaleykum ginnaaw ma sante yàlla julli si yonent bi maa ngi sant di gërëm ñëpp di gërëm samay waajur bu baax a baax a baax. waaw ah, Roza nan nga gisee tey sa xew yi ak uh, sa diggante ak say njëkke sa diggante ak baay ma Mandione ak tamit looy wax famille làmb ndax làmbay wax ak yow. waaw xew bi moom ni mu neex na trop ni mu neex na damay sant nag di gërëm di gërëm Njoon bu baax a baax. na mën naa ne jàppewu ma sa soxna dafa maa def kon nag bu mu bokkal ndey ak baay manqué wu ma dara soxla wu ma dara seetu ma dara tamit si biti lépp lu mu am bokk nag bokk na ak man su ñëwee lépp lu mu mënti yor sama loxo la koy teg man maay xool nu ma koy doxalee dama koy ñaanal rek bu baax a baax a baax yaakaar bi mu am si man yàlla bu mu tas na nañu yàlla gën a dolli sutura rek musal ni si cat ba lépp lu mu bëgg si làmb bi yàlla na ko yàlla yàlla may yàlla yàlla fay fay xolom ni ma téyee suturaal ma jàppale ma yàlla na ko yàlla jàppalee noonu bu baax a baax. moom su nekkoon en préparation de combat nuy dundee ak moom. ah kon ni daan dundee rek moom ku làmb moom changé wul dara si moom kon ni mu daan dundee rek loolu la ñuy dundee amul benn pression si moom du changé dara si moom ni mu meloon rek noonu lay mel ba léegi rek. daan waxtaan ak yow su amee combat comme à l'approche du combat wala. à une semaine du combat daan ngeen waxtaan. waaw dañuy waxtaan ñu ngi koy si waxtaan lañ dëkk dañuy waxtaan bu bëree bëri. Mhm. waaw si lépp si làmbaag leneen lépp si viwam lépp amul dara lu ma si ëmb. daan nga ko conseillé si ay combat am. waaw dañ koy conseillé bu baax a baax. di ko wax lan. dal su demee na dal te loolu rek laa koy wax newul fu ñu la dóoree rek da war a dem. chaque jour loolu laa ko daan conseillé bu baax a baax. am mais daan na am foo xam ne yow daan nga gis ay faayam ay erreuram nga xam ne tey kii dafa dem te warul dem wala dafa xeex te warul xeex. waaw dama koy lu bari kay moom fugaam moo koy yóbbu rek pour moom foo ko dóoree rek dafa war a dem fekk loolu daal mooy seul erreur bu koy daaneel rek loolu moom moo koy daaneel. léegi nag mi ngi préparé pour Gambie. ah mu koy ñaanal rek su demee mu dal rek yàlla may ko may ko ndam bu rëy mu indi roi des arènes bu Gàmbi fii loolu rek laa koy ñaan te su ko yàlla fayee xolam incha allah du mos a jaaxle si àdduna. li nga xam ne moom la soxna si wax kon nu wàcc nag dem seeti ñoom. tante nag sama tante waaw ma gërëmee sama bàppa ba pare di ko ñaanal maa ngi gërëm sama tante ndax mën naa ne tey ji sama yaay ñun ba muy gaañ boobu 9 ans la am xaw ma ko sax bu baax mais sama tante tey jii kiiwul dara. sama naan dawul dara si ñun lépp lu manti am balaa njabootam di defar njabootam sax ñun lay njëkk defara manqué wu ñu dara soxlawu ñu dara sama papa la waxoon samay doom day saama si doy ba léegi teggiw si dara lu mu mënti am man ak sama ñeneen ñaar rakk yëpp moom moo ñu yor sama ñaar rakk tukki nañ te loxaam moom mi génn si lim si def yëpp yëg nañ ko dañ koy ñaanal yaa lañ dund nee naa chaque jour dañ lay ñaanal yaa dund ba ne doomu Coura ñoo lay yóbbu Màkka ndax tey ba may ba may matu min wi lañ ko woo ba 4 heures du matin mu ngi si hôpital yi di wër te bu ko neexoon mu ne mu ne jur dañuy wujje bay wujje si armée mais moom defu ko defu ko sax soo gisee da naan sama tante moo ñu jur nee naa ko ay doomam ñii dañoo xees ñii ñuul donc mo loolu rek moo ñu différencier mais amul dara lu ñu xaaj jaale lépp loo lépp lu ma soxla man ay doomam ñoo ma koy defaral bëgg ma nag teg ma sama place fu ma jaaxlee ñoom laay woo ma sàmba xam ma dem ba xamul lu bari mu leen di conseillé na si ñu may jàppale dama koy ñaanal rek yàlla may ko wér gudd fan lépp lu mu sonn su ñun ñun mënuñu kaa fay de mag mbokk fekkoo kenn fekkoo si yëpp moom moo koy lii fu ma xewlee moom mooy teg bagage am teg def lu muy def yëpp du kenn du benn mbokk bu ko si fekk si kon dama koy ñaanal bu baax a baax a baax yaa nañ dund ba ñun ñii ñu jël suñu xaar di ko yóbbu maaka muy dem muy dem kii nag moog sëñ Ablaye Diouf Fall noo bokk wenn way jur maam Lamine Fall leen jur kii mooy yaayu Baye jóob kii ca këram la maa jigéen nekk ma jigéen Ablaye Diouf Fall moo ko jur ñu jël ko yëkkati ko may ko Baye jóob mi nga xam ne moom mii moom moo ko jur soxna Roqeya lan ngay wax famille Falline ak tur wi nga xam ne tey ba xol yu bari tooy na xol yu bari tooy na ndax tur wi lan nga leen di wax. tur wi neex na torop ndax tur wi. lii yàlla def ba tey Ross am doom jugóor ñu tuddee ko sëñ Ablaye Fall loolu lu yàlla dogal la te lu war a mën a am la tamit ndax njoon mi dafa bëgg a baayam bëgg ay famille bëgg ñëpp njoon bañul kenn njoon lu mu ñàkk rek nit ñëkk ak xañ ñu di ko ñaanal yàlla lu mu jublu yàlla na ko gënal ci kàntanu yàlla njoon nag jabaram jii di Ross xale bu baax la ndax bu mu duggee kër Ablaye Diouf ba tey masula yoon dabal fay ñun xamal lu ko dara lu may lu baax papam tëdd na fi feebar ñun du fi ñëw de waaye liñ koy seet si bu ñëwee bu wootee danaa ol leen ma roos ol leen ma roos lay wax roos moo koy defal lépp te xale bu ndaw la bu ko neexoon ne loolu lépp duma ci fekk manumaa ragal mag waaye dafa taxaw sëñ Ablaye ba ñu jébbal ko yàlla boromam roos masula xaddi masula becc ñu di ko ñaanal yàlla moom tamit lu mu jur si kër gi yàlla na yàlla na yàlla na tekki law ning di naat ci kantanu yàlla Ross ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax a baax njoon ku baax la njoon kenn mënu kaa fay njoon bëgg nay bokkam bëgg na fameem njoon lu mu yor nit a bàyyi si moom ñun dañuy defal lu ne man lu ne la may njoon di defal njoon ba mu amagul ba ni mu amee njoon lu ne la may defal njoon bàyyi lu ma dara ma di ko ñaanal yàlla ba tey rek di ko ñaanal yàlla di ñaanal nganga mi nga xam ne mooy ujjeeg Ross si kër gi tamit ñoom ñëpp danoo baax ma di leen ñaanal yal yàlla defal leen jàmm ak salaam si kàntanu yàlla. waaw asalaamaaleykum mbokki Sénégal tey nag ñu ngi fii ci xewu Baye baay Baye Mandione di koo xam ne duma ko nettali kenn ànd nañu fu ne ba fanaan nañu fu ne fu nekk yéew nañu fa man ak moom tey nag sunu borom def nit ñi ñëpp moo leen fi dajale ci yaram ci tegginam ci bëgg doomu aadamam ak ci tabam ndax lépp lu mu am moom da koy joxe nit ñi seere nañ ko. bàyyi man yoon nuyul mbokki Sénégal yëpp ba ci diaspora bi àdduna wërëngal këpp ñu soog a dugg ak yow ci waxtaan waaw mi sant yàlla bu baax a baax julli Seydina Muhammad alayhi salaam di sant di gërëm sama ñaari waajur ñaan yàlla sama borom fan nekk gën leen fi jóge ak mboolem jullit nekkal li fi am may nuyu sama papa yi ne ci jotaay bi fii ak sama yaay yi sama bàjjen yi di nuyu bu baax a baax a baax sama goro bi toog maa barandoo per di nuyu prési bu baax sama papa Babacar Diop ñoom Jean maanaam mbooloo mi fi tey maa ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum Abdoulaye Thiaw wax dëgg yàlla déplacement bi ngeen def ñëw xam dem ba si ngoon nga ma woo dama si tudd mi kay may la suba xaw ma woon sax da ngeen di kabara xaw ma da ngeen nii li sax mais yàlla yàlla suma borom doole taxaw seen liggéey yàlla suma borom jëmale ko ci kanam jërëjëf ma Mandione ginnaaw bu nu jógee foofu nag Baye Mandione ah, góor gi doonoon koo xam ne su fekkante ne nga am combat ak nga ñàkk combat loxo musul jóg ci yow soo daan ngemb fi ci kër gi moom day jóg rek di bàggante di wàcc di dem ak ñëw ci néegam nga daan sangoo ci néegam nga daan ngemboo looy def ci néegam nga koy def mu génn àdduna yàggul dara sunu borom def nga am gune tuut tànk ëlbatiku lan nga yëg ci yow ba tax nga tuddee ko doom yi naam war na jaadu na mais lan nga gën a yëg. waaw ah, mais sant yàlla sunu borom la nit ku nekk loolu la yàlla parce que waajur kenn mënu kaa fay muy papa di yaay kenn mënu leen a fay kenn loolu doon jot toujours un milliard am mënoo jot benn asaka ci ñoom mënta nekk. da ngay jéem rek da naan waajur moom ab toola loo ci loo ci bay rek moom ngay góob xam nga dëgg yàlla suñu waajur la woon nekkoon sunu xarit nekkoon suñu lépp parce que dama demal ba suñu diggante euh, moom ak ay doom dama wax man doom yëpp laay wax nekkatoon ay diggante papa ak doom sax dafa garaawoon affaire bi billaahi wallaahi tallaahi paa bi ñun ñëpp juddu nañ ba ni ñu toy nii kenn mus sa gis meram amul benn doom mus sa gis meram mus sa gëdd benn doom kenn mus sa dégg si gémmiñam saaga wallaahi ba pare muy maanaam góor gu doy waar daal lu ma waxee moo nu juróon bu baax a baax mais sa waajur doo ko xam 100 pour cent mhm. mais nit ñi maasal jamono diggaale moom ñoo koy xam 100 pour cent mais yow doom da nga xam maanaam dëkkandoo bi ngeen dëkk ak cofeel nga am ci moom nga am ci moom mhm. xam nga mhm. mais tey man damaa ñaanu yàlla sama borom ne ko sama soxna sii bépp doomam ak moom muy góor Seydina Mohamed laa koy tudde ma loolu laa ñaanul yàlla ma tuddee Seydina Mohamed ñaari yoon doom sama ñaari doom yi góor Seydina Mohamed laa tuddee direct xam nga moo tax koro tuddee fii mais kii sama papa laa koy tudd waaye na ngeen jiital Seydina Mohamed ci nopp ba pare doo ko def sama turu papa ndax maa ñaanal loolu yàlla te Seydina Mohamed kenn du ko war ci ñaan lépp loo wax si moom da nga a def xam nga moo tax ma jiital turu ngi dégg ko baba Diop moo def loolu ak teg nag turu paa bi moo doo ko jox paa bi turu yi ndax nit ku nekk dara loolu daal dara gënu ko daal ndax man su ma ko defee loolu du man man joon maa jur man maa am doom da doom ji moom ma ko yàlla moo ma ko jox bu neexoon yàlla tey du ma du am doom da am na ay góor yu seen i soxna seen soxna amul doom ñoom amuy doom te du seen yaa fu du seen dara dogalab yàlla la yàlla suñu borom loo am boo yoree soxna lépp loo am ak moom ci yàlla suñu borom moo ko moom ndax ñun yaay papaam rek ngay dégg mais xam nga fa ko yàlla defaree damay dégg lu bëree ci say interview ngay tudd Tahirou Sarr ngay tudd Prési kooku ñuy wax euh, Souleymane Ndiaye di tudd tamit monsieur le maire kii nga xam ne moom mooy euh, Ablaye Diop ñu bari daal damay dégg daal nga di leen tudd daal loolu lan la ci yow. non balaa maa yoosu damay àggali Cheikh Mbaye parce que di gërëm bu baax a baax suma Tanmati Diagne ndax suma soxna papa bu baax bi ne tolloo diggante nekk ci tawat gi moo fi nekkoon ak moom di ko jàppale guddeeg bëccëg lépp man sama kanam lépp lépp yàlla na ko yàlla sama borom fay parce que bu ko neexoon tey mu am borom këram. mu toll diggante mu dem bàyyi ko fa loolu gis nañ ko fi ba tàyyi xam nga yàlla na ko yàlla sama borom fay ak suma bàyyi ngeen waxee géey mais ak suma bàyyi na yàlla sama borom fay vraiment taxaw bi rafet na trop macha allah xam nga parce que li ma laaj dama ci sa que euh, président Souleymane Ndiaye mi yàlla suñu borom moo nu boole kenn présenté wu ma ko li gën a nga xam ne boole bi yàlla moo doy waar am moom mi kenn présenté wu ma ko kenn kenn kenn kenn dajaay Macky Sall moo génn àdduna Alioune Sall envoyé ma message fekk sama papa génn àdduna moo doon maa jàll si waxoo ma dinaa ñëw jour moo war a jaale si nag moom fekk am na beneen nijaayam bu génn àdduna mu ne ma tey laa waroon a ñëw sa kër mais sama nijaay dañ koy lii saraxal te président dañoo géej waay man nga fay jaar sax ñu gisoo wàll ma ne waaw jour boobu may dem nag si yoon yi maak moom ma wàcc oto bi moom mu wàcc ñuy doxandoo maa ngi moom mu téye sama loxo ne ma yow de yaa nekkoon sama mbëru papa te sama papa génn na àdduna dalaa bëggoon te yéene boobu mu amoon si yow nag bëggoon la yàlla dogal man ma lay doo gis nii man maa yàggal yéene boobu ci yow nii ma jël numéro mu jël sama numéro wallaahi suñu diggante ma ak moom ba nu yàlla boole léegi matagul at est-ce que man ay ay ay sept mois yooyu billaahi yàggul te mel na ni ma moom ay at at lañ xamante dégguñu si lu mat une semaine laa matul une semaine de mu oo ma yóbbu ma Casamance yow xoolal mbërëm làmb nga xam ne gars yi fu ne lay dugg ci àdduna bi fu ne dugg gàllaaj ba mu juddoo ba léegi xam nga fu Casamance féete moo fu mujjee dugal billaahi wallaahi taala moo ma mosu dugal Casamance moom mii yóbbu ma ci biir mbokkaam ñu defal ma foofu defal may ñaan mu fere fa xaalis bi dul jeex billaahi wallaahi tallaahi dama damaa dem mu jéggi ma ne kii événement bi daa mel ni taxu gaa daa mel ni man mi maa ko taxoon a jóg pour maanaam mu yóbbu ma si gars yi ñaanal ma pour samay mbir baax wallaahi si ma la goon a concentré sa euh, événement yi mu a euh, présider foofu noonu parce que loolu du ndaw mais yàlla na ko yàlla son borom jàppale moo xam ni bëgg yàlla na yàlla son boroom defal la mu ne ci xolam bu koy mbébét ak ñoom Jean ak soixante tëdd ci yaay dégg ak ñoom ñëpp tout ñaan ak moom ñëpp lépp loo xamante ne rek yaakaar na ko ci moom yàlla na yàlla sama defal leen lu kawe njort ah, léegi nag yaa ngi préparé pour Gambie nag fi mu ne la ngay wax askan wi yàggatul waaw c'est vrai pare euh, may gërëm tamit encore Tayru Tayru Sarr maa ngi koy sant di gërëm wallaahi ba ma nekk hôpital Magrose ñu ne foofu noonu ak tantaam ne fa affaire yi na trop président mi moo njëkk a ñëw billaahi wallaahi tallaahi gaarato moog gen mii yéeg ba ci kaw seed rose yëkkati xaalis bari jox ma ko wallahi loolu dafa rëy déplacement xam nga man du ma man maanaam du ma jàpp doomu aadama ci xaay man déplacement ak yéeg man loolu ma yëngal ci nit billaahi déplacement boobu mu def ko roog mënuma ko fay wallahi bàyyi fa xaalis bëri dafa métti woon na sama doom chaque jour cinquante mille laa fay xale bi chaque jour parce que crèche fay foofu noonu te xool ni mu fi àggee te bokkul ak loolu chambre bi nekkoon ak ordonnance yi bokkul affaire bi métti woon sama côté mi ñëw moom mi géré lépp xam nga ma envoyé ko message moom tamit mu ñëw gérer la moom tamit parce que tey daa nit ku nekk rek yàlla wàccewul jox kenn dara lépp lu la jox si a aadama da koy jaarale wallaahi loolu la ñu na yàlla da jël sa wërsëg jaarale ko si nit boo naagoo da nga naan xaw ma nag lan xam loo mais tey bu leen neexoon tey ñu lay bàyyi ma joon bii ba ñuy liggéey suñu xaalis fekkew ko xamul fu ñu ko liggéeyee cent franc duñ ko ko jox xam nga mais atumit def yàlla nañ ko yàlla sama borom fay wax dëgg yàlla kontaan naa trop wallaahi doom ji nag yàlla dund ba ñu ñëw ñu fekk njariñam wallaahi ba mu leen defal loo xamante ni man mii paam sax du ko defal mm. billaahi yàlla na yàlla sama borom def loolu yaa nga jëm bitim réew muy Gàmbi mm. supporters yi ak fan yi lan nga leen di wax non bay man mo sonante affaire làmb duñ ko fa ndax xam nga ci xeelal ne quoi mm. waaw mo sonante affaire làmb moom loolu sant yàlla rek ñu defal lu ñaan rek yàlla may ñu fekkee tale incha allah quoi waaw yàlla may ñu fekkee tale ma tey ma lay sant di la gërëm ndax li nga def nii rek surprise nga ma defal parce que man foogu moo ba ma oowee waxoo damay indi caméra waxoo dara da tudd damay ñëw ma jékki-jékki nga bi xam ba teg caméra yàlla na yàlla sama borom fay sa liggéey bi yàlla na ci am lu kawe suñu jortu waaw yàlla jàppale la baax a baax may la xaalis <laughs>